dañ fiy jóge bitim réew mi ñëpp ñëw ak mbooleem koo xam ne bàyyi nga si te ngir ñëw ba bokk ak ñun jotaay bi ñu toog bu ñëwee tamit parti opposition yi nga xam daje nañ fi ah ñu ni maître Madické Niang na maître Pape Diop ñëw na monsieur le ministre conseil Youssou Ndour yabal na Mara Dieng ñëw na naka noonu Karim Wade tamit yabal na forte délégation ñëpp ñëw nañ mbokk yi tey jii dañoo woote woon benn multaqa muy colloque international si l'islam la paix association bii nga xam ne mooy AIS di boole kuréel yu nekk Sénégal yëpp mu tarixa yëpp ñoo woote woon tey ndaje nii gannaaw bi nga xam ne xëy na gis ngeen documentaire bi jàll ak li ñu liir ci discours bi mbooloo moo xam ne depuis 2015 lañ taxawoon gannaaw bi amee ndigal kilifa diine yi waaye tamit waaye tamit gannaaw bañ amee récépissé état du Sénégal ñaar yëpp am nañ ko muy ndigalu kilifa diine yi ak ndigal lu jóge ci état du Sénégal la tax ñu taxawal ko nag mooy dañoo gis ne dafa am défi yu am ci adduna bi ci xëy na ay réew yoo xam ne sax nekk doon ay réalité la ndax boo xoolee ci réew naar yi ba agsi fii ci Mali agsi feneen ak feneen violence ak terrorisme mu ngi koy lëmbee waaye Sénégal alhamdulilah rabbil alamin farlu gu askan wi farlu ak kilifa diine yi ak nit yi état yi tax nañ ba yu bari yu ñu dégg xëy ay soupçon am te loolu mënul ñàkk. waaye alhamdulilah ba ñuy wax yéen ñii yàlla mën ñu dimbali loolu nag kuréel gii di AIS képp kuy topp di suuf depuis 2015 ak léegi xam nga ne liggéey na ci liggéey bu rëy rëy ndax premier na jàmm bala ñu ko mën a am faaw booloo am booloo tarix yëpp am nekk benn maa ngi nuyu baax suñu secrétaire général Sidi Ahmed si bisi Abdel Amin teewoon ak Sidi Fatah Aïdara bi ak ñi ci topp ñëpp ñun ànd nekk benn bi liggéey ngir wàññi ne leen kat ñi yàlla jiite seen kanam te yàlla wax ne yaa ayyuhal lazina aatii'u llaaha wa attii'u rasuula wa ulil amri kilifa yi kat ànd nañ nekk te kilifa yi bu ñu moo tax bi nga xam ne gis ñu gis ne tasawu menacé wu la gis xam ne jóge nañ ci yeneen réew dugg ci biir réew mi ñoo xam ne bind nañ ay livre di ko tasaare ci biir réew mi ngir bëgg dévier xale yi ci njàngale bu baax mu sell ñi suñu mën bu baax ñu def ci la kuréel bi judd ci moment yu mel noonu taxaw ñu ngi ko waxee léegi 2016 def nañ benn caravane de national de prière pour la paix et sécurité au Sénégal pour nan lañ mën a fexe ba sensibiliser ndaw ñi ñu bañ a def seen arme waaye lañ def seen arme muy la prière bi Cheikh Moussa Tall defoon lu armam suñu yaay maay defoon ko suñu tubaab defoon ko Boukou Ndiassane ñëpp defoon ko loolu yaakaar naa képp ku doon suivre AIS ci ak moo xam internet bi gis na loolu liggéey bu ne buñ ci liggéeyoon. fexe nañ ba sensibiliser ndaw ñi xamal ne leen seen arme warut a nekk extrémisme warut a nekk maanaam kalachnikov warut a nekk terrorisme warut a nekk violence waaye seen arme xool leen seen naam yu baax wala seen baay yu baax wala seen sëriñ yu baax dinañ defal seen te ñoom seen seen salaatu faate seen xasida loolu yàlla dimbali ba ndaw ñu bare bare bari am nañ ci lu mel noonu ci 2017 bi ñu ne nañ jëmale suñu liggéey ci réseaux sociaux bare bare bare bare dajale fi borom xam-xam murit xarit yi am borom turuq yëpp ñu daje fa tar xale yi nga xam ne dañuy bëgg a doonal am bu turine foofu ñu tar leen fa fexe ba xale yu bare bare bare yoo xam ne am nañ seen i son am nañ seen i wax yoo xam ne nee bu ñu bi nga xam ne kuréel gi ko liggéey naroon nañoo dem lan wala ñu loolu koy def nag waxoon naa liggéey liggéey lañ ko état ko liggéeyal ndax gis na ne ñi nga xam dañuy jihaat réew mi dugg duñ dem palais duñ dem gouvernance waaye fa ñu njëkk dem moo ci miséré ak ci jàkka ya di gis bokk ci Mali buñ jógee duñu ñu ci pale ba duñu gouvernance waaye dañoo dem ci Tumbuktu fan nit ñu baax ñu tëdd patrimoine moo daan nekk fa ñu màbb ko daaneel ko kon maanaam mbokk yi buñ dee liggéey ñun lañ njëkkal suñu bopp mooy njëkk aar suñu yiin moom balaa état dañu ko wax ci loolu lañ nekk di ci liggéey di ci liggéey ba yàlla dimbali ñu moo lem réseaux sociaux bi ci ñoom fan la ñuy jaare te ñu jaaxal France France Amérique li tax attentat di fi am mooy ña koy def ñii laver seen cerveau yi wala boog ñoo am docteur ci réseaux sociaux réseaux sociaux lay jaar ñu nag Sénégal yàlla ñu am ñoo xam ne bi ñu jug di def lii ñoo xam ne seen responsabilité seen maam dañu fee bàyyi lu sell loolu dañoo ñaanal pour yàlla am sa di ko sàmm ni ko yéen daan ñaane kon ñu ca àggee dañu war a jug te bañ a xaar kenn alhamdulilah rabbi yàlla dimbali ba bu rëy boo xam ne bokk ci saal bu ñu bare bari mën nañ ko mën nañ ko seere ku ci bëgg xam leneen lu bari bu jógee jotaay bi duggal nga tàppee wala les activités de l'AES boo ko gisee da gis lu bare bari loo xam liggéey nañ ko yi loolu bu ñu nag ci 2015 bi ci 2018 2018 di jublu si ñu ne ko war nañoo jéem a xool nag benn ndaje moo xam ne léegi nekkatul national waaye dañ koy génn mu nekk international ñu tuddee ko ñu xalaat communauté bi ñu toogee waxtaan scientifique bi ñu ne ban tur lañ ko war a wutal ñu ne nañ xool l'islam et la paix moo leen di l'islam naka nekk diine jàmm la waaye lu tax ko tuddee ñëpp takkal ko violence ñëpp takkal tourisme mooy da ca am ñu ca nekk ñoo xam ne dañuy mbubbu lislaam ba pare yóbbu foofu lislaam ñu ne kon Sénégal day ñun day mën nañoo wane lislaam paix et tolérance ndax ñun suñu réew suñu kàngam suñu kenn mës ko bind ci morom ja war ñu topp ak tolérance leen ñu leer ñu gis ñu réew xam ne ah, kawe na ñu ñu ne ñu ak boo gisee boo gisee balaa la tax mu am fu mel noonu dañ ko jàngale si noonu nga xam ne islam et la paix xam ne ñun gis nañ ci photo bi noonu. sëñ Abdou Amin ko daan Moustapha Niass gis ngeen télévision wallaahi boo bëggoon weer weer ñëw fekk li gàtt di sant mbooloo mi di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf maam Cheikh almunas di ko waaw moom lañ ko dara ndax faaw ñu yàgg leen ko ah, wax dëgg yàlla dañ ko tuddoon tudde woon mbir mi tudde gi nag lu tax ñu tudd ko du dara lu dul ñun liñ mën waaye nag ndaw bu demee ba rëcc maanaam keneen moo koy kar jàpp ko te ko ko man mooy état ñu gis leen ne wax dëgg yàlla taxaw nañ ci lu baree baree bare ci loo xam ne ci wàllu ñi nga xam ne mooy wàllu terrorisme ak yeneen ak yeneen liggéey ci di liggéey liggéey boo xam ne ñun ñi nga xam dañoo nekk ci réseaux di ci liggéey AIS xam yu baree bare bare yoo xam ne xëy na am na ñu toog saal bi xamuñu ko ci xale yi fi ñu toll ci maanaam maanaam li ñu leen endoctriné ak fi ñu toll ci ci xatar ak ci lu mel noonu wax dëgg yàlla bu ñu gisee état taxaw ci lu mel noonu di ko def loolu dañ koy saluer moo tax ñu jëloon bis bi tudde ko duppe ko ko wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko di ko seeral ministre yu tedd yi nga xam yebal na fi ndax sept sept ministre daje nañ fi yoo xam ne président de di la culture jëf almunasiqul am ci xitaab bu am solo boobu dafa mel ni li nga waxoon rek dañ ciy delluwaat ndax ñu ngi waaj a jox Cheikh Mouhamadul Kara Nourayni moom mi nga xamante ni bo mbooloo yépp mbooloo mi daje daje nañu ci mu yore kàddu diine ji ci ñi seq kuréel gi ñu ni kàddu kilifa diine yi bu ca jógee ndax yëg nañ ñi dafa war a dem Louga waaye yàlla njaboot ak fonk rendez moo tax mu ne na ñëw daanal ganam mi ndax gan ni ganam la bis bi ci bisam yi la bokk waaye xam nañ ni fii ni ñu ngi ci yoonu Louga la magam ju baax ja waxoon nag ci Ahmada Tijaani yaa yaa aimata diinina wastayxisu wa daxu tanazoa wa takasur wal mira nee na yéen kilifa diine yi